yow seetaanu ma la de. yow yaa taxaw sama kanam yow toppal seetaanu la waaw. moom mënoo boo mënoon ko fiy jële eh man ngay wax ah yow sax man li ma yow yow sa yow yow ñëw na yow sa bés ñëw na yow say yasi. ci man ñëw na ah. waaw et bu ma wax nga nga nga may tontu pièce par pièce laa lay def dama lay jatan ñaqaru tabaski dama lay rey sama jàmm nag kër gi li ma fi neexul dafa bari bu taal sama télé ko moom bu ko taal facture dix-neuf mille cinq cent fu ma ko jëmee neexuma sa kanam neexuma ñu nga sol sa yére yu bëtt te yi mel ni ku yor conteneur yi janax fu ne janax aw fa sa yére neexuma ni ngay rëdd sa kanam neexuma waaw maa ko wax neexuma yow dara neexatu la sa sër yu xasaw xunn yi ana kay ci kër gi sa xool bi ma xool neexuma bu ma xool ay bu ma xool kay may xool sa doq lu xóot lii jooy ngay jooy neexuma li ma fi neexu dafa bari waaye ba yow eh. gaañ. wey sama ndey. waay wey sama ndey wey sa baay waay yow nga naan wey sama ndey seen togg yi ngeen di togg sama ab ni ni mu koy récupérer di ko toj sama yaram bi aw ma lu lu lu nutrition nutrition bu baax nutrition alimentation nutrition bu baax aw ma ko neexu baax aw alimentation bu neex bu doy soo fa bakkan la jaaw waay yow dara neexuma maa ko wax Aliou yi neexuma ndax bu ñëwee bu naawee si lay daal xool ko rek xool te wax man kër gi fii la ñu ma waxoon te kër gi ba fii tabax bi amu fi woon lii si kaw ni rol rol li nii amu fi woon kii kii da sañ seen kër gi moo kër gi la de ndax nii la waaye bi bi dafa ne mbap fa nii tey moo ne rol rol ci kaw <laughs> lay li la léegi daam na xaalis xam naa ma ngay ma ngay kii rek wéqu rek xëy wéqu mi rek dina sonn civilisation da ngeen waxul dara ci dëkk bi boo gisee lii doo sone ñu ubbi la. luy sone. xam nga ñun mag ñi njëkk a fëggalu ñu xam de door nii ñu ñëw ubbi. koy borom kër gi borom kër gi ma jaxumpa ma jaxumpa sama ma. ma namp yàbbi mu namp wenn ma doon nampe la namp. yooyu yëpp tibbewuma ko. Ah. ñëwal ñu fii ci biir. waaw dégg ma la wax eh dafa doy. fii coow moom jiitu jiitu eh, la ñuy bañ ci kër ah jaaral ne booy dem bi jiitu mënuma jiitu ah jiitu nga topp sama gannaaw mën moom waaw sa piis yow. waaw dog nga naan ma ne sa caa yu gàtt xoolal bii moom eh, nag ah. am na gan. ah waaw muy yow. ah ma eh, ah. gan dem yaay la wax. civilisation. dawal. la bee. salaamaaleykum. eh waññi eh waññi wu bu ndox. tey dinaa la yóbbu. patron. patron. eh bu ko nee. doxal nga laajte xaw ma jaxu ba xaw ma bay wër man sama yoon la nii fi laa jaaroon. salaamaaleykum. ma jox ana ma joxul nga. waaw xanaa kenn newu fi. waaye Djibi Diouf da nga ma dul yónnee ci ah. camion ceeb bi yow mii. ndekete yaa ngi fii koy wax. Ah. lan ngay waxal. waaw danaa la woo ca kanam. ba jàmm nga. waaw kay. kon kan ngay waxat ba jàmm daal nga. waaye ku la ku la ubbi ah kii sa waajooyu waaye waajooyu de bare na kii affaire de. ana waa dëkk ba ba jàmm daal nga kenn taw ba ñama ay mais yaa ak maam ak bàjjen ñoom am na jaay ñoom ñëpp nga lay niir. kontaan naa ci yow de alhamdulilah xanaa da ngaa oreelu. Eh, lan da ngaa oreelu. Eh, wata nga jëkk nga. c'est du jëkk jëkk dépassé laa. waaw yéegal toog nii. fan bul toog foofu toogal nii. ah moom li nooy na de. toogal nii ah, toogal nii mooy salaam xaaral ma woon la soxna si présenté la ko. Ah, ba jàmm daal nga. buuda suu. buuda buude. buuda suu. buut suu. oui paa. bu dikkee di nga kay nuyu sama mag ji. salaamaaleykum kii saa maga ñoo bokk ndey ak baay. saa soxnaa ngi nii. waaw bu dee soxna daal nii la nuyoo man. ñëw ma koy euh, bu dee sa soxna kay dafa ma war a respecté li tubaab di wax dafa ma war a fullaal waaye man nuyu ko mu naan ma sawa sawa sawa sawa ban nuyoo lépp yaa ma tooñ yaa ma tooñ waaye tooñaale nga sa bopp ndax bu fekkoon noonu li ma la waxoon nga def sa doomu yumpaañ jële sa sa mpoqataan bo boobaa lii lépp du am jigéen kaw kaw ñooy sëy waaye jigéen ndakaaro yi kenn du si sëy lu ñuy sëy lu leen neex rek xam nga ni kii dafa nga bu ma respecté woon danaa ko naan ma kii bu nee la sawaay moom nii sax du jikkoom moom ku yor la ku teey la diglu ma rek bu du lu xew dara ah ku la tooñ dangaa jotee ndey ak baay kenn tooñu ma wax ma ku la tooñ ci mbedd mi ma lijjanti ko paa kenn tooñu ma man maa sonn ci kër gi ah, nga noppalu kay nag maa ngi noppalu de damaa bëgg a voyage ah voyage rek moo tax si suba ba nga fas sa kanam danga may mayaat at rek boole kook at bii muy ñaari at ma gën laa miin ma bàyyi la nga dem fu la neex te sax man daa am surprise boo xam ne dama la koo dencaloon yow da ngaa fàtte ni sunu anniversaire yegg si na samedi la siis bii di ñëw <laughs> génn rek dem réer ba suur naan ba màndi rek daal di dikk ak sunu koor ñëw nga nag am na wax ju ma wax léegi ak wax bi nga waxaat boo xamoon lan la lan lan la und loolu daal yow xam nga lan mooy voyage benn voyage la la bëgg def yàgg sa xaalis ni la fuuf dem yoonam yow tam may may wax nag nga naan ko versi la xaw ma li nga am daal da ko koy versi mu voyage def ko benn voyage. léegi nag danaa la xamal benn affaire comme que nag soppeeku nga ba léegi yaa ngay wax mag jëmm mu toll na ak leneen nga naan def anniversaire baax yow daal leer ratatati la ko woon wax waaye yegg naa. waaw xam nga moom bu waxee waruma ko tontu loolu lii am nag am na ba pare yàlla def na ko pare kër gi moom benn jigéen a fi daa bu te laa fi mu toll nii kay ma yokk ci leen bu buuda su ma yokk ci leen may ma rek ma yokk ci leen bu ni loo woon génnal doo fi fanaan doo fi fanaan maa wax lii wuyu ma sunu anniversaire mariage bi noonu lañ koy defee dégg nga man paa bëgguma dîner soirée laa bëgg nga may ma ko parce que ba ma takkee ba tey génn ma te dama waaye soirée yeewaay ndaw Samba patron da wax foofu dong la eh, patron def ko soirée bu rëy ngeen defe ko fële ca dooso ba nga xam ni foofu moom star laa fa bu ko defee nag nga mën a fecc ba tàngaa nag merci mauvaise idée idée bu rafet la joxe dañ ko def ab soirée yaa ngi may dégg waaye nag li ma lay wax mooy soirée ba moom maa ngi moom a dem waaye yow yaa ñuy xaar ci kër gi man a wax ci waay ah. yow kay bu dem jote man mi koy maa dem yow garde ña kay si kër lay toog wax na xoolal bii moom ay ah, ba ma ba ma ndaanaanu danaa ndaanaanu ba ndaanaanu fu dara nekkut <laughs> loolu la ñu wax nag waaw yooyu la wax ñu ne anniversaire ko fële xam nga nu ñuy defal ah. laggal ca biir nga nga nga sangu waaw man sangu woon naa faneer waaw rek sangu naa di ah kii lii lépp sangu naa kay euh, euh, faneer passé rek lii dara fii di xëy faneer passé ay pa <laughs> je ne comprendre plus <laughs> gis naa sangu ca fan yee ndaw xeeñ <laughs> loolu moom mi ngi am ba tey moo tax it nee la xunn <laughs> booy sigil yaa ngi sëgg rek fu la fekk yaa ngi sëgg eh. foo jëm sa kër ah oui sa kër laa doon def entraînement laa jógee quoi ay man de dama doon génn nii mais coo jiwul man nga seeti woon quoi non mais ni mu demee rek li ma la expliqué woon te xaw ma fu ma jëm ah. entraînement laa jógee fekkaat paa bi di dooraat maire bi quoi kaa boobu ba léegi te xam naa ne bu ma duggee ci kër ga rek ah. non def lu garaaw non ma préféré ne xaaral ma ñëw xool sa kër quoi nu ma fa mën a def non coo jibul sama kër mën nga faa kii mais xoolal affaire boobu noonu bu yeboo nga daal que loolu kër goo dem fekk ko fa affaire dóor paa yi ni bon man ngi sam paa xanaa sax duur mu dóor ba ma ci sonne xam nga def kër ga laa dem fekk maamam yaayam yaayam moom laa door joon yi wóor ci la doogoon naan affaire boobu kii du yoon ma récupère suma yaay ñu dem coo jibul mais xoolal loolu du fi jeex. mën nañ dem sa kër nañ dem kër ga nga sangu solu nga fanaan fa ba suba sax nga xëy doog a delluwaat. <laughs> c'est ma femme. ta femme. oui bien sûr je me suis marié depuis hein. elle s'appelle Mimi. bonjour Mimi. ça va. Mimi c'est mon cousin c'est Malik. ça va mhm. tiens ça. ça sa téléphone baaxul. pour nga jël si ma aéroport ah wax yow ana booy bu dof bi. hey mami mami. je oh, suis là kay kay kay kay surprise. dégg waa mu jaay faam. jaay naa la war ak màgg nga léegi. am law xanaa gars yaa ngi ñëw. <laughs> du changé. hey c'est ma femme. mami sama cousine c'est ma cousine c'est Mimi xam nga lu coow li nag déggul dara ci olof déggul dara dara déggu ko hmm. saaga ko boo ko saagee doo ko eh. am de français day ah? diis ci man <laughs> eh, jaaral eh, bul def loolu bul def katale ko ba si kanam <laughs> eh bien chef eh damay jàpp nga fa akoyto gaa yi de kay xamoon naa la de toogal suuf yow baa ma toog suuf toogal suuf waaw yow amoo far yow déedéet avant loolu ana ñoom Sinthia ay ndey aana yow maa ngi ànd ak sama jabar ngay wax ay yaa ma leen wax ay ndey aana ay laxaat ngom heureusement yaa ngi koy tojal de ndey laxaat moom ma nga fa mais ay may laaj ci dëgg wax ju rëy rëy lañu am lu ñu war a wax xajul fii xam fu mu xaj. si kaw waaye tamit bàyyi ma ko nag tuuti nag maa nag. bu la ma xam tamit ko bàyyi tuuti bàyyi ma ko expliqué après maa ngi ñëw léegi toppatoo affaire yooyu ñoom seet yooyu. damay mer de bàyyi ma ko tuuti nag bàyyi moom nag dëgg yàlla ma waxtaan moom. ii nga bëgg kaa nga question maa yëg si kaw. napp naa ko man la bëgg. dama yëg si kaw li jënd benn affaire. taf nga fekk ma fa. bu mu fi diir ah, dama ko soxla trop yoo xam nga loolu. waaw ah? loolu dara. <laughs> damay mer de. Ah, bëggul ma mer. Eh. ah ok xam nga jeewal. waaw dañ maye ko. waaw. bañ ko taqee ba léegi Malick dafa mel ni ku tàqalikook sa góor. akarloo man. Eh, yaa ma doon waxale naan ma. ga garde l'espoir comme une arme. ah celui qui gardera l'espoir comme une arme finira toujours à la réussite. waay. waay sama ndeyam laay bàyyi ko sa papa. xoolal ni ma gisee sa boisson bi dafa ndaw. ndaw <laughs> ba nag boisson bi doy na de. loolu tuutiwul. tuuti waaw comme lekk nag moom lu ngeen si préparé. lépp lépp ba mat wissuye ko waxee woon ah. lekk kay dinañ lekk ba kontaan ma. ah man de damaa bëgg le ñëpp ñëpp lekk ba suur rek naan ba màndi. xam nga nag loo ci lu ñu waxagul. Ah. la ma war a sañse. ah waaye yow xamagoo loo war a sol. ba léegi xamaguma ko. ah yow kat am nga loo sol yow kay bu la neexee yaay choisir kay. ah kay yaa si des. sama robe bu noir bi ma jëndaloon am yii ëpp naa def kooku rafet na loolu waaye dafay génnee saw forme te foofu bëgguma kenn xool la. ah kon bi ma jëndoon ci laala benn jaune laay am kii bi fii ah, boobu même chose yow it xam nga ni ñoo yam xam nga ni ñuy defar. fa ma la yóbbu woon place ba ma la yóbbu woon ca euh, ca marché see nga xam nga ko Seydou saa saa xarit boobu. tamit jaay tamit jaay tisi kii rek xew yi rek yow dimbali ma waaw boobu moom duma ko sol. Ah. dinaa ndoketu di mel ni màgget. du ma ko def de boobu ñëw ma ni ñëw ba rafet na tuuti ba seer la. di conférence. wala peeg bi bala te la ngay wax wala baab. la ah. def. waaye nii nga def. jeex na. waaw bii ko. xoolal li ma daal li ma El Hadj Diouf yónnee rek. ah. doot fii laay def. kontaan naa ci yow. maa gën a bëgg ci yow. nga nii nga ko defee. waaw noonu rek la. jëm kontaan naa ci yow jëm. jàmb leen seen Dakar ba mu ñu defar ba mu baax. waaw mbay la. moo kenn da koo xam. dabal ngay conférence. uy ma di boole tey kontaan naa ci yow de. xamoon naa ne di nga bég ci man. nii rek nga ko sañsee. yàq na tey soirée bi du yomb. nii nga def nii. dana mën a toog. ma ma ma xëri man. yow mii laa wax nga toog ci kër gi. demoo waaye yow tey de nag patron. yii nga may def nag moo mën a yëngal sama xol man. doo dem de noonu la rek. nga toog ci kër gi xaar ji ba ñu dikk rek. kon moom dafa foog ne day dem. lu tax lu ma def. da nga dul dem kuy des ci kër gi. waaye yow maanaam nag xam nga ne nag yow boo leen fête anniversaire bi dama ko war a fekke doo dem daal bu bu guddee nga def nii yow nag moom la xam yow nag moom nag ay ma wax lan nag fu mu toll nii wax ak yow nag dafa jot nag yow ah, da ngaa jéngu waaye yow waxuma la jéngu damay attaqué nga naan ma waxu jéngu yow moom dama amul lan lu may seq ak yow dégg ma la wax yow moom bis bu toll nii yow bis bu toll nii garaama ma dem damaa xam nga bis bi ni mu tool la tax may wax. waaw du ma la du ma la def dara ndax bi. waaw waaye doo dem de. ah madame wax ca waaye looy. saa su ne a ñaata kenn wax ko wax ko ba ko yow de. barke rasulaay. oo oh, xoolal ma ci kër gi. dimbale ñu bu ñu um. damay bàyyi laa bul bàyyi bàyyi laa la. ah demal fii saw teraanga fi nekk. doo mun a yow fi ñaaw rek nga wax ko. Ah. yàgg naa la rendre service. kanamam gu ñaaw gi yàlla yàlla gën a ñaaw. ooy ati muy mu. saa may la nga dee. yaa yay jooy doo dem yaa yay jooy doo dem yaa yay jooy doo dem. moo yay jooy du fi jóg moo yay jooy du fi jóg moo yay jooy du dem moo yay jooy bopp. rëgin bët rëgin. fii ma mbaa doo changé sañ sa bii yow. ah ni laay demee làmb ji. maa mi ah bërëb dana metti de. bërëb ah, foofu làmb ji. làmb ji toj. xam naa ne man eh, bu ma leewaatee la songee. mbese. fu ku fi bëre. moo a jaaxal. Ah, ñu anniversaire nga naan lamb ja. Ah, anniversaire la leer na ma dangaa nekk ci dëkk bi naan dañuy lamb. ah eh, man dafa doon bëri ngeen wax. yi anniversaire nga naan. bëri ah wees kontaan naa ci man man sax dama waxul moom. Ah. man dafa rek ji laa sol sol déguisement bu rafet bi ndax lamba ja ma sagal la. neexal ma ngay def wala doo dem. kii de lu mu bëgg bëggoo lu mu bëgg bëggoo nga wëy ci. ndax mooy borom bis bi. Ah. te lu mu te nag bu fekkee ni nag neexaloo ko doo dem. man li ma neex a fi am bi su ma neexee léegi doo dem. ma wax la lenn. Ah. kii booboo nga neexal ko. Hmm. lu mu wax loolu moo am lu mu ni loolu la ñuy def it loolu la ñuy def te bu bu waxee ni doo dem doo dem. Ah. waaw léegi nag kontaan naa ci nii. waaye kontaan yow moom bu ngoonee di nga dem. fexeel nag ba lii nga def nii bu ci dara dañ. te sa nii laay demee. te léegi bu soobee yàlla wér. mooy ma te sa yeel yi ko diw. dana diw eh yeel boo ko diwee dafay kii day nekk comme jën yi ñuy diw dawlin ma neexal. ma ma taas la kon. waaw. way paate lam way jambaari mbul caam may talax ni ku ma talax ndaa taam may weesu naa si ndoo tey saa sukkum nukkum jaasara pelu ngay teen leen ca teen ba mu faa ngaaju la teen ay waay ay xanaa kontaan nga anniversaire <laughs> waaw rek loolu daf mag ba ñu gis rek dóor ko amatuñu seen baay amatuñu seen i nijaay amatuñu kenn kenn kenn kenn dóore rek dóor yi ba lool neexu ma danaa ma ci neex jaay dinaa entraîné dafa mel na ma war a mel moom laay wër ci dëkk bi bi moom <laughs> moom vengeance c'est la terrible du dóore rek moom dana torox ñaari yoon def naa ko toroxal yàlla toroxal ah maa yokk mu jeex ah. yéen a bëri na de. mu yéen mu yéen kaay kaay kaay bés bii quoi mu yéen mu yéen. mu yéen kaay bésal ma fii waay jaww. ci rigole bi. Ablaye def loolu. génn na dem. Ablaye moo def loolu. Ah. Ablaye sama na. ah kon Ablaye kay dégi dé waxuma la ko dégirité naa ko waaye <laughs> kooku. kooku waxam ko togul dinaa ko gis man loolu andi ma. Ablaye de ma suuf kooku ko jox da ngay tàkk ci bi la ma la ma tàkk bi. weregaar boo ku béy lu weregaar jala ma takk takk ma nii jatal ma takk ma ma jël kii di ci sport fas yéene ko wër ci dëkk bi rek fu ma ko loolu ko dem ba yeew sa bàyyi àddina dina la yeew baax na loolu kay moom jàppte naa la gërëm naa la bay ci kanamu yàlla neex nga ma gërëm naa la sant naa la neex nga ma ndax yam nga palaasu doom respecté nga ma fonk nga ma déggal nga ma yëg waaw moo tax ma may la kama la may nga d'accord ca euh, dem di ko service bu rafetit neex nga ma loolu dëgg la parce que ku ku am sa kilifa war koo mën a déggal noo gisee mayo Sénégal bi ah mayo bi rafet na trop daf laa jàpp sax sunu raay réew xam nga man sama papa moom du ko yàq fenn. xale yi nag dañoo war a góorgóorlu nag ñoom it indi ci mi dara football nanu football. dañoo war a am jom de. ah moo gën de. jom moom dañ koo war a. moo war a football nag waaw papa. Hmm? man de sama tànk tey tànk jàmm rek yow. jàmm rek ngay dox. <laughs> yaay sama xarit yaay sama xarit. <laughs> jàmm rek. <laughs> ba sama papa. waaw. daf ma xam nga sunu datu mariage bi ñëw. sa sa sa jëkkër. waaw waaw waaw waaw waaw noonu ngeen woonte ayut noo mën a woy sa jëkkër ba xolam mbir bi nag na. waaw sama datu mariage dafa ñëw. léegi nag mu ñu toog si waxtaan si daal. Mhm. mu ne ma dinaa la ko féeteel. ndeysaan. dinaa la defal anniversaire laaj ma ñaata mooy doy rek. Mhm. ma jox la ko. ndeysaan. ma ne ko waa d'accord baax na. gis nga doguma la yàlla bu la dee dog loola baax na bëggal sa xol rafet na baax na. ndax boo nekkee sa jëkkër bëggal ko ba xolam neex da ba nga xam ni moom nga moom lañ leen may woon dellu si ngeen koy ngeen koy ngeen koy ngeen koy feete ci seen xol neex na taal sa ànd ak moom dem seeti Iran Ndao boo ko seetee nga ko sama papa ma yónni ngeen jàpp seen dab ñëw mu defar leen mooy conférence religieuse ndax Iran Ndao man ay mbiram doy na ma waxkatu dëgg la xam na yàlla xam na yonent ci bi dina la teg ci yoon ci yoonu siraatal mustaqim nga xam sa diggante ak yàlla def ko conférence invité sa ñoom papa ak ñoom yaay invité magi koñ bi invité gone wutal conférence ba ab thème ñu delloo si suñu xel ci yàlla kontaan naa kontaan naa. waaye waaye papa soirée dansante la de. danse foog ngeen danse. dooso. kuy dooso. mooy boîte bi nekk ubbi. ah kon daal yow ci sama dégg yi yéen da ngeen di dem te boîte de nuit ba dafa dafa amal fa versité kooku yow da ñàkk jom yow amul reconnaissance xam nga lu tax yàlla ba nga juddoo man ay ilimaan laa woo ak i kilifa diine. dañoo nodd ci sa ndeyjoor li xaam ci sa càmmoñ yàlla def ci yow li muy def ba nga toll nii ñu may la jëkkër teg la ci yoon li siraatal mustaqim ngay wérsité ci boîte de nuit amoo ci sama gërëm amoo ci sama accord neexuma defal li may def li ma wax ngay def boo ko mënul leneen loo def neexuma amoo ci sama ngërëm mu nekk nii nag c'est trop tard li la neex neex na ma mais yëgal naa ko samay xarit ba pare carte na. léegi daal surtout sax ñun yow da maa neexul dara ndax yi fi ñàkk fayda rek ngay def neexoo sa jëkkër neexu ma parce que dafa ñàkk fayda seen dara neexu ma man ba leen mayee laa set ci seen affaire parce que ba ma leen visionné étudier seen affaire gis ñàkk fayda wu taxaw ni tàcc ci yéen rek nanguwu leen bii sa maître amul fulla bañ walla na la jëloo ci man dara ndax boo jëlee ci man am fulla gu toll sa jëkkër di la wax ni dama lay soirée nga ni ko religieux ma ko loo koy da fooy danse jëm foo danse yow sa jëkkër war na laa wax bursu bursu nga di ko nangu balaa maa dee mu naan nga naan wii di di ko jël na ma la tuddee woon sànni fële jay naba hmm? ma xeex jeewo ji xeex jeewo ji ñu wàññi ko ba ba ba mu ah, nga naan nga naan ay bursu bursu bursu bursu nga naan wii ah. naa samay kàddu nag jàppal ni waa baax na jërëjëf xam naa fi ma teg. léegi nag comme que da nga koy da nga koy soirée fas yéene ke góor ñaar jigéen ne tàmbalikoo rek nekk ca di def lu soobul yàlla suñu borom léegi nag amoo sama ngërëm jógal nga dem jógal nga dem. gis nga nit nit ak la mu taal dégg nga ku <laughs> kër doy na la problème ñàkk fulla ñàkk fayda aucune personnalité aucune ah pour dugal dara sa tànk si kër te bul bul bul newal fii tee dara neexuma ci li ngay def dara fii tee savoir vivre nga amoo benn fulla éducation de base zéro eh. yow da ngay tërri rek ñëw ne faraaj kon yow da bëgg wax ni mën da damaa réew da ngaa ba dof amoo waaw <laughs> yow da dof ku ñàkk fayda nga li ngay def ci dëkk bi dégg naa ko ànd ak sa moromu doom yi di leen doxaan dem ba ci Ousmane Ozone di fa jënd ay yére di yappar yappar yi mel ni borom kër gu ñu dab di ñan. xamul lu ma lay bëgg yëgal maa tey. a waaw mag de bu rusee danaan maa tey. maa tey man nëbbu tuuma léegi Ousmane man man man man lay fena. Ousmane de ma ko wax ndax maa bàyyi ma bokk. maa ko yóbbu Ousmane Ozone man maa ko yóbbu solol ko la man neex parce que yow la la xam nga ko. maa jël kama neex mu dugg ci sama xol ma ànd ak moom ba ba Ousmane ca Ozone euh, euh, jëndal ko la ma neex. ba nga ñàq fay da ndax boo meloon na mu mel des ca kër gi lu la fa jëlee kee fa toog mi euh, lu la fa dégagé sa xooli neexuma cog coli neexuma sa dara neexuma neexuma sa regard neexuma bàkke rasulullah yi parce que li tax neexoo ma mooy la dangaa bon bëgg jur lu bon duma ko nangu yow kër ga ba nga fay ñëw gis nga na mel xii fu ma maru ma raflewu ma ñàkkuma fayda nga déconné ma football la <laughs> kafane gis nga ko doomam football naa ko sa doom jii nga xam ne yaa ko jur ma may ko def nii moo ciy rëcc nga koy bëgg a bon loo jàpp sa doom amoo looy def ci moom yoo xam nga ne bu doon sa doom ak sa doom rek ak yow du sëy may ko jëkkër ju baax bis bi mu juddoo egsi mu ñëw di la laaj conseil nga ni ko conférence al wala nga ni ko wàcceel kaamil wala nga ni ko wool iran ndaw mu defal la jàngi diine xamal la sa bopp xamal la sa diine nan la nit di ñëwee nga jur ko nga di la laaj ci conseil nga koy conseil conseil yu bon yooyu lu ci xelu xale bi yàqu ci def parce que tu es mauvaise et puis attention yow dafa mel ni danga nga maa fàtte yow dafa mel ni da nga fàtte. ci la attention hmm. xam nga ma de envoyé la ko rek. gis nga sa tàng jooju ngay wax ñu naan la di la tëdd ci dëkk bi itilaire. waaw man maay Marguerite Thatcher la dame d'affaires. Ah, itilaire maa ko tax a dëkkile. man la man la Charles de Gaulle kañoon man man la dexoon way wa man la ne woon si ce n'était pas les kon boo ma ne itileer juumoo te sama itileer googu ngeen ma tuddee maa moom ba bàmmeel yow xam nga ma ana sa garaat garaat yow ku la nommé man chevalier de l'ordre national du mérite man yow ana sa garaat garab ngay laaj. waaw ku ku la nommé. pension retraite amoo ko yow da ngaa soxor. pension retraite amoo ko de. yow da soxor. man digg gannaaw bu bu ennemi ba bonee nag. ennemi ba bon bal de ci digg kanam lay doon waaye digg ginnaaw da nga doon daw. Eh, et puis sax man waxuma loolu. ana sa pension. ana sa pension retraite yow da ngaa soxor amoo ko ndax xoola amoo benn classe sa sa armée ba nga nekkoon. yow da ngaa soxor man naa la saasu man di la saasu di la saasu ba indi la sama kër da nga weddi. et puis nag wax ji day jeex. <laughs> lu tax nga daw foofa. taas looy daw foofa. taas. njëkk seeni faal. ak rasulaay. gudd man ko yóbbuwul naa gànnaar dafa am maam. ça va ma ne ça va. Ah, bien bien bien merci loo def fii. loo fi def ma umpale ni maa ko yoroon ca kër ga la ne woon. waa jugal jugal nga génn ci biti amoo loo def fi jugal na gaaw. pas possible observation. eh. man nga jóg génn. observation. le nit en le NIT en Mbour est de membres inférieurs et supérieurs. mais ki dafa dafa dof. le nombre et les membres NIT en Mbour non conforme au nombre des membres du NIT normal du Sénégal. yow toos doo wax ci kii. waaw jugal génn. le toos yow eh, jugal laa wax. xale mba à l'extérieur. Eh, ci bit la ween. xool kii daa dof. dof na nag dof na gis nga dof na dof na lii la ñuy wax ne màggat goo xam ne daa demoon ger ba demee ba mag day dof dof na. waaw bébé mi ñëw maa la wóolu woon. Ah. Mm, damay fête anniversaire bëggoon nga feccal ma ci. waaw zouk nga bëgg wala kii salsa wala malax. Hmm, zouk bi moo ma dàqal. zouk bi la dàqal. waaw moo ma dàqal de. waaw zouk soixante quinze mille la malax cent mille. amul problème bàyyil ma jël zouk bi. waaw léegi mënu am da avant cinq mille. non demain rek incha allah. Hmm. demain waaw amul problème kon kon maa ngi ñëw de. ah ñamal ma xool. ma ñamal la lan. <laughs> ban nga bëgg. zug bi doo ma ñamal tuuti ma xool. zug bi nga bëgg. waaw loolu amul problème. man kay loolu amul benn problème. wayoo yoo yuuy yuuy. gis mm, nga ne tax boobaa bu ko jàppee. du kas rek te des fois am bonus la nag mbalax bi. ñëw ci mbalax bi naa kontaan rek moom naa kontaan rek moom am benn problème doo ma ñëwal ci mbalax na yàlla tuuti rek tuuti waaw tuuti rek beneen bi ñëwee kontaan rek ah di nga kontaan bu la dara métti ma kontaanee rek ah. moom am benn problème mun naa la bonisal sa mbalax jeex na tàkk waaw ah, dama fàtte kon suba mun naa ñëw Oh, oh, oh, oh! One more, Ah, waaye kontaan nga de waaye lii nag wax dëgg yi fu gone la. ah yëf yi gone ba ci la da ngaa bëggoon a kër ga. waa ji kan moom ay rege rek lay teg. Ah, ah man damaa xamul bopp Marley kañ la dékki. soxna si naa def fay. ça va bien ça va tranquille ça va. waaw mais pourtant man ci jëkkër yi laa bokk dama xam ne wul rek ah. déedéet. oui. Ah mais seulement maa ngi woon États-Unis Europe et tout ça quoi. Ah, mais maag sa jëkkër ay xarit lañu. ah li tax xaw ma la kon. nekkuma fi lu bari. loolu rek moo tax ma ne comme que damay dellu après demain. waaw euh, da nga may jéem a jox sa téléphone. comme ça su ma demee. mais s'il te plaît donne-moi cinq minutes please. j'arrive elle ah ok ah jox ma sa téléphone comme ça su ma ñibbee ma lay woo de temps en temps. sama xarit la. ah bon koy jox nga non j'aurai pas le temps du ma am temps quoi mais su ma ñëwaatee dinaa ñëw. dinaa la woo sa numéro lan la. 630 40 20. 630. 40 20 40 20. waaw 630 40 20. waaw y' a pas de problème dinaa la woo. ci fa soo xam naa man damay dem nii quoi. waaw d'accord parce que damaa war a teel a yow dem Dakar. ok mais dañu déggoo amul solo. ëllëg fii moom taxawal ngay politique di conférence tey moom da ngaa kontaan toogoon rek ma da jàmbo sa Dakar ca bi daa wërsëg yeme mi ma ñeex jàmbo sa Dakar ca bi daa wërsëg yeme mi ma ñeex ci li ñuy wax lu mu doon. lu ñu wax. wax ko. da ko fàtte mbaadu wañaas bi. xam ngeen lan la yéen neexu leen lu tax yow sa jikko neexu ma. lu ma la def da ëppal. waaw ndax nag la ñu daj moo gën a metti li ci des yow neexoo ma. pour lan yow xam nga lu tax neexoo ma. waxal ragal gi nga ragal sa jabar. man ma ragal sama jabar góor du ragal jabaram. wax na dëgg nag eh. te ñun ay déglu ñun ancien combattant xam nga ni xam nga suñu jikko. kenn yabul man sama kër boo fa ñëwee gis nga la mu mel. déglul. Mhm. audience bi sama audience la maa ngi koy toppatoo. Mhm. audience du saa soo jógee rek war war war duggoo kër président du noonu man sax sama kër balaa nga na nga koy xoolaat kër président noonu la war ku jóg rek dugg. dañoo gis ngeen ko ci soxna si na nga def. ginnaaw <laughs> suba. kilifa. day eh, may ma. damm naa sama bopp may ma boo la jàppee damm la kilifa day kilifa. Ah. yow kii sa doom di doxaan. Ah. amoo nooy def lu dul dem di ko di ko suuf. Ah. Eh, eh, siif la moog siif yee yëpp. juif seen doom sax dañ koy jëfandikoo. ah waaw moo yow. déglu maa tey nekk juif. Ah. kii ku jis ku mel ni moom sopp la nga nekk nekk nekk juif kan dégg nga la moom sama doom lu ko tere woon a rek le yam ci ay moroomam kii du moroomam kii di xale bu ndaw sama doom ji laa ah, xanaa sama sama doom dama koo sowee de ndax dee gu bon kenn du doxaan ku la ëpp doole dégg nga kii mag la day fot gone dégg nga kii xale bu ko war naa su sa bëli tot kii kii fa may mag mu ko moytuwul it kii li mu mën kenn mënu ko sawlof sawlof nitel mani yéen ñii sax mu ngeen ci. ah waaw ndax am nga baat ni ndax romb na leen seen seen yaram. am waaw loolu mënul ñàkk ci góor. màgget kay bu demee ba gone gu mel ni romb ko. waa kon nag ngeen war a tëj seen ngaam. daa xam te ku ci waaye. dégg nga seen seen daa léegi yéen neexatu leen ma. leen na yëgal naa la ko. waaw gone gee koy dam remit te lit wuy ma balaa maa dam man mi sax damm naa saa bopp. Ah. naa ci yàlla bu la jàppee ba bàyyi la. maaleykum salaam maaleykum salaam. ñoo ngi sama yaa rek maa ngi noonu ma jóge woon Tivaouane tey mu yónnoon ma fii Thiès sama benn jaay ma doon ko xaalis. gars yi dogaale ma dóor ma nangu xaalis. dogaale nangu dóor ma ah, waaw yow dëkk boobu ñiy dóore ba tey ñu ngi fi ak di agressé nit ñi. Ah, ma def ni loolu jeex na ci réew mi. Hmm, ñu ngi fi di. xaalis bi dafa bari woon. bari woon na trop. xanaa na nga doon jooy sa bët yi de xonq na loolu doom yow dóor yi métti na de. dóor na ma ko waaw ba ci léegi nag loo bi nii dama ko doon jaay sama yaay moom ma ko takkaloon or la deux cent cinquante mille ba cent cinquante. ah seen bi jox ko. wurus pire. waaw pire ko jëlee. sama yaay moom ko jëndee. xanaa sa yaay dafa am xaalis. déedéet yow noo defoon ba mu takkal la ko lii lii lii xanaa gars yi gisuñu ko. bañ lay gis nañ ko kay mais xam naa loola lan soxla woon li ñu jël ci man. ah repos repos repos garde waay repos garde waay repos garde waay repos garde waay repos bu garde bu dama bu garde bu ah en avant en avant en avant marche <laughs> ay anciens combattants la yow ñun ñu guerre Chine guerre Amérique guerre guerre États-Unis guerre fii chinois yi dëkk ba fa ma dawee woon. daw yu métti yàlla përëm la përëm bu përëm la. mu naan ma sama yaay imbécile. nii la ñuy naxee gaañ ñoom. en Allemagne dem nañu États-Unis xeex nañ fa. Mm-hmm. xeex nañu Allemagne xeex nañu ak fan. rek loolu jëmbal fuuf ak fan jëmbal fuuf. jëmbal fuuf ah waaw. yow de fuuf nañ la yow. que <laughs> Nabil Moussa foofu boo bee toj fa ñu xeex yëpp xamoo fa. Oh, boo bee toj bal. suñu xeex bi gën a metti fan la woon. dama ni. Eh. gone yi nii la def dañuy jàpp përëm bii sóob ko mu xonq ñu ñëw naan or la. suturaal leen ko ko faatu kenn du ko def nii. moom kay suñu problème mooy fu ñu koy suul ah deewul jogal jogal sa seeni nday ji am jëlal dama jox ko sa ndey. sa pérémi nday jooju yóbbu. sa bàyyi ko juddaloo sa ndey. sa yaay neexuma. bi muy nekk njagamaar. imbécile tubéem bi dañuy jàpp pëlëm nag taatam yi doon eh, eh, eh. ngeen def gone gi métti na kat dafa laa métti repos gardé bu waay repos gardé ah. ah, amul heure moo gën de toog de moo gën a wóor. repos leen toog waay. waaw alors def nag. e xam mm. bu ma nuyu aw maag yow benn wax banaa la neex a waaye yéen bu ma leen di nuyu da ngeen ma fay ba kenn fay ko kii rek chef a ngi wax ak moom dafa ñàkk fayda amul personnalité ndax yow ba ma tëbee ñëpp ñëpp di wut sama doom ma xañ ñëpp jox la ko maa ko def wala def ma ko waaye yaa ko def waaye léegi nag la waaw ah. bis ba sama doom ju dellu si woowul kilifa diine yi defu ko jàng wàccewul kaamil lu dul dem ci boîte de nuit gii ñu naan dooso di ko di ko fa wérsité wérsité wérsité maanaam ñu ñuy feetawaat seen seen seen seen seen seen baal bi bisu juddu sama doom ah anniversaire yéen eh, man nee naa ko kat bu ma sañoon ñu woo Iran Ndao ñu def ko ay jàng waxtaan eh. mais yow nag noo ko war a def conférence wala ay jàng su suñu diine ji waa léegi baal leen ma wax leen ma wax ak moom yaa ko baal déedéet yow sa gémmiñ laay wax neexoo ma waa léegi baal ma wax ah juruñu waaye eh, nag àq gi sama àq xam nga léegi lu ma la cay wax ah. yàlla ci musa ba yàlla topp ah. waaye yow nag noo ko gisee noonu la ah. xam ngeen lan la kii ku soof la ñàkk a neex gi muy wax moom it neexuma soof na torop te yéen a yem eh, eh, bu ñu maîtriser ses paroles de maîtriser ses paroles de maîtriser tous les paroles de la de la fille ñun dañu laa faale yow kii réew daal yàlla na ci musiba yàlla topp rek waaw xaalis la ñuy sëy xaalis la ñuy doxaarante léegi seen waajur yeeg seen bàyyi ñoom it du jaay rek ruubige di di làgg da nekk milagro waaye tey damay woote sax ñuy woote ama Al Pacino ñëw na Sali Boté sëñ bi ngir yàlla mënoo maa dimbal ngir yàlla bu rasul nga bàyyi sama numéro téléphone bi nga bàyyi ma woo su ma tàgg woon dina bëgg keneen ku dul yow parce que yow da am jëkkër. damaa bëggantewul man bokk ma ci jigéen ñi am jëkkër di am fal soxlawu ma la. ma ne sama xol moo ma tàgg su ma tàgg woon dina bëgg keneen. xam naa ne nag fi may yem dégg. lii lépp je le fais parce que tout simplement je t'aime d'un amour pur. sincère et sans artifice. je Je t'aime beaucoup. Et ciao. Tu parlais avec qui Ma mère. Ta mère Oui. Tu crois que je suis une idiote J'ai pas le droit d'aimer ma maman Attends. On se sait, hein Qui fouille Vous fouillez, Moi, j'ai pas d'explication à te donner par rapport à ça. J'ai une mission à accomplir. Quelle mission Ma mission à moi. Ta mission Oui. On s'était dit de partager tout lors de notre mariage. Ouais, yo, ne me Ne me fais pas chier. Tu peux faire ce que tu veux là. Mais à notre retour, pense-y. On se sait. Tu sais que je peux te détruire en une fraction de seconde. Ouais, yo. Tu le sais. J'en peux plus. Oh. J'en peux plus. Eh, eh. Tu envoies des messages par livre, par ça, par... Mission Mais attends. Une mission. Ah, eh. Imbécile <laughs> Tu es un damaa bëgg moom. foo ko natt nag foofu la. ñu defar ba baax. man daal fi yaay bañ. nangu man yaa melentaan yi dox sama tànk yi kay waaw du ay melentaan nag man rek maa nekk ci sa kaw. du bëri nii rek loolu dara nag yow tamit. ah ah ay ay papa. may ma mooy def foie disons. yow tamit nag ma nga bëgg naa. te di di damay def foie disons. waaw li ma li ma li ma la ñaanoon tey ni ma ko may. waaw bu baax day def foie disons. ay waa ji waaw papa yow looy def nii yow tamit nag. ma carburateur bi yow man defaguma la dara sax ngay def nii. ma carburateur bi. ko bëgg lu ko apaiser. waay. ay waa ji yaa ngi tax sa yére yi ak tey li li nga def rek ñoo seet ma moo ma njëkk a neex damaa bëgg rek ñu defar ba mu baax nag bu fi nekk nag di kat kat yi lan la nag yow tamit. ah damaa xamante ni man tamit nag yow man nag doo ma gis nag di mer yow tamit nag ah bi ni mu sewee la ma neexee moo may daaneel man yaay sama kaana. waaw waaw bàyyi na sama loxo bi ma kër a rek. foog ma nga ñëw ba fii bi ne bàyyi ma rek libre ma rek sa bopp nag ma def li ma neex. tegal nii sa bopp. waaw. ah waaye yow tamit nag. waaw nag yow tamit nag. bu ma déranger waaye. bul ñëw foofu nag. bàyyi mag sa bopp. bul ñëw foofu. wala ñeme woo ma. ah si si si ñeme laa tax nag ma tere la goos bi. parce que booy bi xamoon naa dana yàqal neexuma. non bàyyi waxu goos boobu nag. yow neex nga ma ni nga def nii neex na. man bëgguma ngay wax. kooku. ku muy bàyyi. eh wax dégg ku muy bàyyi. eh eh yow y' a pas de amul fëgg ah. eh yow looy def fii. yow fan ma fan yi ma lay woo yëpp nga ma da feebar wala sa yaay moo la yónni paa bi moo fi doon ñëw. paa bi sa baay la. Eh, boo bëggee doom nga wuti ko. seqanteewu ma ak yow ay baay musoo maa jur. je ne baa xaw ma la. boo bëggee doom da koy wuti. d'accord moo ma ci gënal sax neexoo nee ko neexuma la. neexuma. xaw ma nenn xaw ma neex naa la am neexuma la de mais lu ndaw laa lay xamal gis nga sa kii mënu laa yor mënatu ko ah te naa la xamal leen de tey la fiy mujjee ñëw. waaye moomay daane. xaw ma kuy génnati guddi waaye dootul moom. waaw bañ a àgg ci loolu ah yow kon yow si vérifié que yow. fi mag ñi di fi mag ñi di fàkk julli moom dafay fàkk di jonkan di di di gannaaw kër. yow ma ne nga tëdd kii mi ngi coupé sama appétit te damaa nekkoon ci sama liggéey sax. ñëwal nag sa xol jeex. dog rek yow tamit nag. ñu hmm? daf maa dog. ñëwal rek. dog ma wala neexatuma la. neex na sax waaye. couper sa appétit. mu hmm, dog daal lan la sama daal lii. ko jëm. et puis menacé na ma. mais papa yow tamit nag bul def nii. yow tamit xam naa ko menacé na ma jikkoo ma bon. jikkoo ma bon maa ko jur waaye. Eh, eh, eh, man daal tey moom kontaanuma ci yow moom. tey moom kontaanuma ci yow moom su ma sañoon da ngay toog. ñu hmm, defar ah foo jëm. waaw bul dem yow tamit nag waaw kon nag may bàyyi nii nga dàq ko ba pare man doo ma wér nag ah ba ba ma dem fii moom amoo fi situation booy defar waaw yàqu na daal waaw ah, déedéet yàquwul moom daal mënoon ngaa toog ñu jeere man pare gu ma ci yow ndax doyalu gu ma ci yaw merci nga xam naa sa yéene ci man waaye euh, baax na waaw boo demee ni ma woo bien sûr waaw tout à l'heure kon waaw ah, waaru bay mënoo waaye bi da nga koy réglé man. la ko wax ba ñu dugg ci ah, yàq ngeen war a démystifier pour lan ay ndawtal ay vingt mille francs ay vingt cinq mille francs dix mille sax c'est trop mille francs nga ko waroon jox mën na li muy man du ma nga ca Allemagne xaw ma fan Norvège bàyyi lu muy Norvège ah daal mun na ngénte ngénteem bàyyi ko mu ngénte. maaleykum salaam maaleykum salaam jàmm rek kay. ñoo ngi sama ak xale yi. ma maa ngi nii rek naa de maman xale waa kër gi donc naa la sama naa si yow. <laughs> allo alhamdulilah. ana alaaji bi ça va mi ngi fa. jàmm maa ngi nii yaa ngi ci jàmm. sant bu wér a wér tonton bi moom. laa bi moom macha allah. boo paree rek yàqal ma ko. càmbar waaw. su <laughs> tontoo bokk ci. waaw waaw moom kay <laughs> macha allah. barke rasulullah tey mbay amat. jëm <laughs> jaay naa sant mbay amat jaay laa tudd jaay laa sant. Ah. barke rasulullah. ndeysaan. tonton defar nga bu ñëw nag. Mm. Ah, waaw dëgg la waxtaan. ok man hmm, li ngay sëngee ma ma jaaxal. jaaxle rek. jaaxle. te aw ma fu ma ko jooytu. ah buy de bu tojul kenn du ko jëriñoo. eh bàyyi politique ak conférence bi dégg nga li ma la wax yow it waxal li fi ne. jóg ñu dem bii moom ànd ak yow moom sax man erreur la man nga wax fi xew. yow da nga wax ndànk rek. mu jaay nag du ma wax ndànk ndax lii bu ma ko waxee ndànk bis bu jëmee kaw kër ga kalaate te doo ca man dara. nga ah, wax maa day taal na wax la fi xew wala man ma wax ko. am naa gémmiñ mën naa wax sama bopp. kon nooy politique ak conférence. acca dëgg-dëgg su ne nga ne ko ati na ah ndax dëgg yàlla benn daal ma sonal di ma telefone guddi ak bëccëg subaak ngoon sama téléphone noppaluwul message bu dem beneen ñëw mi ngi may bëgg a rey dama laa bëgg bu dul jeex ma ne ko sëñ bi man damaa am jëkkër mu ne ma faalewu ma jëkkër mënoo fexe fexe ba doo mujj ci man te yaay papa xam nga ne li muy neex neex neex deret yépp waxi góor moom bu ci duggee ah. bu ci jotee ci noppam sama sëy mën naa tas tas nan ko yóbbu police glace yow bu ma am ci coow li dina dina ci jot du ci pexe oui kon tëj sax day am hmm. xam nga lan la nañu fexe ba am numéro. ñu recherche xam ni ba ba xam ni moom mooy kan. bu ñëwee ba ma jàkkaarlook man-man. waaw barki xam ne damay toog ci kawam rek mu pàcc. sallallahu alayhi wa sallam. déedéet bu fi pàccal kenn yow. yaa ngi nii toog yaa ngi nii toog nooxal ba mu noox yaa ngi dégg li ma la eh. Eh, baal doore bi nag baal doore bi. nag damaa bëgg nga noppi te xam ne man maay sa yaay. man ku ma gisul ci dëkk bi dégg nga ma. ndax man maay capitaine u waaw dama ne bato boo jiitewul yow xam nga de du def hmm. te yaa yor sa alcool yor sa mer korokoro koo paas maawul ku ne du faju di ko bandaas fi ba fii nag cim kon nag waxal ci bii bàyyi leen politique geeg conférence ki barki rasulaay bàyyi maag moom ma jëflante kook moom muy kaw si suuf muy kaw ci ci kaw ma defanteek moom ba mu neex ba Sénégal gépp xam ne defante naa ak moom ndax borom ku am ndey ju baax ju mel ni man mhm. dara doo ko tiit yow looy jaar jaare ak la te xoolal sa baay bii te mat baay. sokk kay. ta kooku jagal la. billaahi jagal la bu ma ko xamoon maa ngi def nga ñëw ci kawam. jabaru jabaru jàmbur ngay envoyé ay message. sa patron de moom xam naa ne kenn mënu koo lugg de. tonton yow toogal rek garab sa kal yoo loo dugg mu sotti waaye grâce rek boo paree ñu dem. man daal aal moo may dugal ci lu kii ca ba mu merul sax man mënumaa wax ak moom sàquma laa nag nii nii ba mu mere li muy làkk ma neexul yow quest la. tu sais mami ton cousin ne m'inspire plus confiance. Hmm. Elle a beaucoup changé. Il dramatise tout ce que je dis. Ça plus continuer. Hmm. Et tu sais quoi? je peux tout accepter tout sauf partager mon nom je ne badine pas avec je ne badine pas avec je te dis yii nag Sénégal looloo fi am di nga fa gis ku fi ñett ba ñeent tu as vu donc tu me comprends au moins tu es une fille tu peux me comprendre si, si. tu peux ressentir ce que je ressens tout ce que je ressens Donc, euh, je te dis une chose. Je lui donne trois jours. Trois jours. si ne laisse pas cette fille, je vais le tuer. Tuer ah yii kaay nag ma bala nga ko rey ñu rey la yow mi tuer la yow mii dañ lay tuer. rey lañ lay def yow. tu as compris donc. am nga rey je vais le tuer. waaw dañ lay tuer yow tamit. d'accord. d'accord ah, je suis bien d'accord avec toi ah, toi au moins tu es une femme tu peux me comprendre. comprendre tu peux me comprendre. nan laa lay mën a comprendre yow mi fekk. waaw je je me suicide. ah kon xam nga nooy def. suicide moom comme que moom moo leen maye woon demal ca moom. d'accord moom dina la mën a arranger sa sëy. comme danga ma cee xeeb. ñëw naa ci maa ngi sa kër nii je sais pas maa ngi sa kër. ñëw naa sa néeg nekkoo fa nekkoo ci kaw foo ne ñëwal. xaaral quitte pas quitte pas lu xew lan eh, eh, eh, la. xaw ma dangay téléphoné xaw ma téléphoné waaye décédé nga. ba noppi. ku décédé. pour rek pour mu gàtt. dé nga ba noppi. la la la la la kii ma gis. waaw taxaw na ci tànki ray la. xanaa affaire gel gel la la. man nag bu leen ko rayantee fii dem leen ba ca biti. waaw n'est-ce pas que je te dis que j'appelais ma maman. ta maman oui. ta maman morte depuis. waaw du yomal laa ko doon woowee. où ça. yomal xiyam da nga faa xam. je connais pas. ah, ah Vas-y, toi seul. On, on, ira ensemble. Jamais. On va voir. Et puis, s'il te plaît, téléphone. Je t'ai pas parlé. waaw ga gaañ waaye maa ngi sa kër fii déglu li ma lay wax. wuyu ma maa ngi ci affaire yi aw ma jot fu mu toll nii mënatuma toog damay dem damay dem damay seet sa sama maam dama ko foofu ba tey maa ngi ci affaire bi fu ñu toll nii gone gi dof na. yaa ngi dégg maa ngi sama soixante-dixième puce bi nga xam ne damm naa ko maa ngi ko téléphoné guddi di ko téléphoné bëccëg. di ko saba koñ di ko ko sabañ rek di ko ko sabañ rek mu ngi jooy dundatul yee naan ko ay yow laa bëgg ak yaay sama amul bàyyi ñàkk torox ak paa bi nga yor at nol ak maa la àttan nag mu naan ma sëñ bi ma bul yàgg sama say jooy affaire saytaan affaire rubi yooyu jigéen yooyu you know yee dara tey nag laay dóor bombe atomique bi bu rëy bi tey laa koy def jëkkër ji laa bëgg mu jot ci affaire yi man bu boobaa yëpp dox xam nga lu ñu def yaay ñëw sama kër ah ok maa ngi xaar sama kër ok ciao ciao yaa yaa waxuma loolu de li ngay wax yépp mu ngi ci sama nopp bi yaa ngi Malick lépp li ngeen wax yow nag bett nga ma trop aal su ma xamoon ne su ma la waxee problème bi nii nga koy fajee kon duma la ko wax lii ngeen di def nii du yëfu góor mission mission c'est pas vrai On est là pour des vacances. Moi, je suis là pour une mission. C'est pas vrai. On n'est pas en mission. Tu n'es pas en mission. Nous sommes venus en vacances. Nous sommes venus en vacances. Je suis venue au Sénégal pour connaître ta famille. Voilà ma famille. Si tu me crois idiote, tu te trompes. Ibadrofoy. Ibadrofoy. Ibadrofoy. Ibayo. Merde. xaw ma dafa eh, xoolal gis nga. toi tu me connais de toute façon. xam nga ñoom fu ñu toll nii ñun Sénégalais dañoo civilisé moo tax gëmewuma pour moom bu ma ko bàyyi day delluwaat ci xeetam xoolal gëme na laa gëmewu la kooku après ngeen lijjanti ko yéen ñaar man lii ma lay wax nii moom moo ma gën a amal solo dama ni la lii ngeen di def nii du yëfu góor lii yéen man mii man maa ko waroon naa def ngeen di ma ci génne mais pas yéen yow Malick soo ko waxul dëgg kan moo koy wax dëgg àll Malick lépp loo ko wax lu dul mu génn ci naqarloom gii ne ku deele jug defar boppam sangu ba set sol yére mii dugg ci ville bii féexal xolam waxoo ko lenn xale yi jigéen ñi ngi fii yëpp ñu ngi fii ci ville bi bari ba bëgg a dee. yéen amatoo leen benn benn sujet léegi bu ngeen di développé bu dul bu jeewa yéen lan la man kat sama xel a ngi bëgg a ñaaw ci yéen. ah xoola rek yéen mbaadu. mbaadu la. ah eh, eh. da nga bëgg a jiñ borom ñaari tur yi. yaa ko wax de. wuyu nga man nag waaye bu ma jiñ borom ñaari tur yi. Ah, ñooñu sax leen ñooñu bu ma jiñ borom ñaari tur yi damaa ñëw mission te dama koy accomplir. voilà. mission waaw mission menteur. yow moom xam nga ma yow. toi toute façon tu vas rentrer ce soir et en plus de cela Malick est son complice. rentre toi. waaw ah, debout nga ma rentre toi. tu es qui pour me parler de sur ce ton. ce soir même je vais t'embarquer. tu vas rentrer chez toi. tu as oublié. oui ah, ah oui. <laughs> c'est moi qui ai payé ton billet pour que tu viennes au Sénégal. Ah, et après eh, eh! Bravo ouais, toi, Va te faire foutre, non, non, Monsieur bravo. se fait la gueule devant les gens. Va te faire foutre. Ne me dis plus ça Maître Bonne journée. mbet mi dal na loxoom laal na la. lii nag moom Sénégal amagu fi mën gis kontaan ah yii def nga ba mu baax. <laughs> man boo kontaanee rek kontaan na. fa nga jëm nag bu fa yàgg dégg nga. du ma yàgg maa ngi ñëw demal te ñëw rek waaw ah, kontaan naa lool. <laughs> nii rek nga def. cay. nga jabaru kilifa. waaw du ma di bég si yow yi <laughs> noonu la rek. eh kii yow lay woo wuyul. waaye wuyul kii. kon xanaa sama yaay. far loolu duma ko nekkaale kenn laa wax bu ma ne paa am nga paa ba léegi ba noppi sa paa ngi nii ah, danga maa def ab nooy neex def ma sab xaal fu la neex xare ma fa loo ni lii la man ma teg ci sama loxo loo joxoñ ma dagg bañalu ma la dara nga ne nooy neex la rek waaye nag looloo fi jeex tey fase laa lay def fase laa lay def suur naa la suur naa la foo xam na nga fa jublu bu ma ni xujju leen nag dinaa la ko wax yi benn yëre bu am valeur doo doo ko yóbbaale sa kër baay dara nga fi dul yóbbu fu ñu leen fasee ngeen yaakaar da ngeen roñ la ca néeg baag seeni bagage yóbbu waaye fii dara du fi jóg lii nga sol nanga ko si ba mu set wecc ndax ci yu am valeur yi la bokk lu bon laa lay jox xaartum bu bon nga sol ko yóbbaale ko sa kër baay te juróom minute laa la may dinaa la ñëw jël si fii ci néeg bi yóbbu la ni bukk di ma xool fu see laa wax fu mal xon ay patron tàngal waay ma toppul fële nga doon ma xëri ma xëri eh eh dogal tàmbal bi dogal dogal dogal dogal ana ma xëri ana nga dogal dogal kàmbar gi dogal dogal dogal dogal. lan la. Euh, bu na su nekk dafa am far am jëkkër. nga ni. suñu tur yëpp yàqu na. a ko xool di cate bu yàgg ngi tege le temps que may jël fekk jël na ne ma wuyul munu ma ci la man boo ma dugalee ci dër bi waxoon naa la ko waxuma fase googu waaye fasel xar yaag nag yaag bëy yaag yëpp bool yi nga doon lekke sax fasel ñëpp jigéen taax yi nag xam nga lu ñuy see kitaabu ër ër jukki naa fiq suratu kas kutaabu gi waxi wax joo xam ne erreur kese jukki ba sa digg ba naa naafiq kese bu demee ba sa fere fin ba nag fene kese kese kese ñu roñ la ba nga jeex takk ñun la wëng léegi daal xam nga nu may def waaw ndax yow lii lépp waxoon nga ma ko waaw te dëgg gu wér kéng la ah, damaa ba ana tabara sàll sama doom mu nga dëkk ba ma nga ca dëkk ba ah, waaw nga fa moom laa bëgg nga dem doxali ma ko waaw bu sottee nañ ma ko may léegi léegi léegi waaw waaw acca waa xaaral ma yàggale julli gi kon eh! kuy tukki nag du du julli ba mu mat. waaw baax defal ñaari rakk rek. waaw baax te ñëw doxal ma ko. baax baax yow nag xaw ma noo nekkee benn minute dara dese benn minute rek ma yóbbu la sa kër baay. kii ëpp la. ma ne a ngi baaxul guddi baaxul bëccëg. waaw lu xew. li xew du lenn la rek. man du ma yorob jabar muy am far. lu tax mooy. loo def yow. man du ma yorob jabar muy am far. astafurlah daa am far. astafurlah li ma ko nëbbu waaye tey feeñ na. astafurlah. maa la ko indil nag baaxut te yow it baaxoo. yaa ko gën a bon fopp. man lu ma ci. ndax yow la nuru sa jikko. te Sénégal gi yëpp xam nañ ni baaxoo. Ah. da ngaa aay gaaf. Ah. sa yaa ngi fi yow cundum. waaw li ko waral mooy ana ndeyi kii. waa léegi nag ana wujjam. léegi ana doomi wujjam. ba ci lan dàq nga ñépp te bukki nee lu ñëpp waxay dëgg. baaxoo. waaye toppal fële ñàkk fayda. soof waxal ëllëg ngay si biir loo mën a defar de. mani li ma wax maa ko wax. waxal loo mën a defar sa doom ngi nii may naa ko baatam fase naa ko. kay. fase naa ko. waaw kay ko nan mee fii yàlla saxub jéen maa wax lii. Ah! waaw maa ko wax ndax baaxut mu ne ma xujj. fase nga ko. fase naa ko fase naa ko fase naa ko ba mooy juróom fukki yoon maa ko wax sama baat na poto. soof. waa léegi moom am naa lu may seet. xaw ma allemand xaw ma euh, Italie waaye xoolal xam nga ma de. baax na demal dañuy wax ak sa tàng maa la gën a tàng fopp. Ah, te nga bañ ma ne xam laa wax. te a tàng ma yegg ak yow ba foofu ndax li ngay jaay ci koñ bi amut fii ñun ñee la ragal waaye man ragaluma la. te nga bañ a tàng xaw ma ci lenn laa wax ñàkk fayda. ngay mel na ngay mel na càkkaaba nii maa ngi xaar ba mu amati ba lii ngay. leer na bul bul wax bul wax ndax boo waxee day mel ni dangay leeral te man lii mu la jiiñ juruma lu mel noonu man juruma luy njaaloo xabar gi bari na nag tàngat naa waaye lu ñàkk ful la moom juruma ko amoon nga fi néeg fii la la takke woon nga génn ci kër mu dugal la ci kër bu la génnee ci kër ci kër ngay duggaat sa néeg a ngi fi kenn dëkku ci kër gi mi ngi ni yàmbalam tiliboor baboo duggal sa néeg tëdd jàpp sa ñàmbur yi may réglé naa ko je règle tout bul jooy boo jooy demel ni amoo courage te man a baal ma man juruma lu lu ñàkk jom moi je règle tout ay yow. wala bi ay wax ne yooyu man doy la ñu wax ci fula wala ba ñooñu la ñu wax. ñooñu ñoo dañoo defar réew mi wala beeg. encore nan de jable ble. waa kii yow la. waa yow ma nekk ci la kay. ah ba nga ma de. lu ma lay bàyyee. dama laa gëj a gis. waa yow dama la koy conférence ak politique. waaye nouvelle bi may dégg nag. ban nouvelle. dégg naa sa patron dafa divorcé. eh. woy ma yooyu bu ko ci dugal nga naan daa divorcé. eh dara tax su fi. Eh, dimbali ma nag. Eh. fii jigéen ju fi am jëkkër am far ñu wax ko. ah bu amee ful la ba ko. Eh, bu ko fi waxati. Ah. yooyu daal nag dara wóoragu ci. ndax ñu ngi ci enquête bi ñu ngi koy procédure baa nga avancé ndànk ndànk sans avance lu ñu am. xam nga lu ma bëgg ma lay laaj sama dil bi ndax fu mu toll ñor na wala. waaye yow tabal ngay politique ak conférence. xanaa man ni maag yow nag. waaye yow ma lay doyee. koo soxla sama patron. xam nga ne sa patron laa soxla. léegi nag man xam nga leen laa la yëgal nag kër gi daa nekk en crise bu mu toll nii benn kii dossier avancé wu xam nga du ñuy def defal ndànk ma jël sama temps xool lu may am loo ci mënti am dinaa ñëw ba sa kër wax la lenn rek laa lay ñaan. waaw ah. nga utal ma rek rendez-vous ma ñëw set si la ndax ma gisaale sa patron. rendez-vous fan. seen kër. waaw yow cabla bla nga naa ma nii. xoolal baal ma seet si la li ci des ba ko sama loxo ni may def ba xamanteeg moom maa koy def xoolal. tegal lépp sama loxo naa la gis rek may jaaral sa patron maa ko xam. ah yaa ko xam. ah waaw waaw. waa léegi yooyu yëpp mën naa ne ci mélange rek man moom mën naa jamb sa jaqaar ah pàcc sa lingom yaa ma ma ñeex ceeb bi daa wese fay ma. fay ah jël boobu balaa ma cee dugg danga may fay dafa wóor. mooy xanaa balaa ngay waxi fay ñu juboo xoolal xam nga ne waxi fay loolu duñu boole ndax sa patron bis ma ko keppee lu ma la fayoon triple bi naa ko. waaye waxi kepp munoo koo ba. xamal la ci yoon nga ma fekk ngoon jaaral ci kër gi. waaye indi avance bi xanaa balaa ñuy avance juboo ci cachet bi. barki rasulaay wa ma naxee maa ngi sa kaw. ndax sama waay duma la nax. léegi nag diil bi lan la. foo jëm nii ville. dangaa bëgg ma gunge la. xam naa ne yow da ngay taxawaal rek. jab la blé. <laughs> neexul ba neexul mais sama waay. wala bii naa <laughs> ko yaa mission accomplie boo xool dafa mel ne eh. man na ñëw laa wax nii. waaye man de yaa ngi doo a war a mën a takk photo bi ma. je suis content fu mu nekk nii. sëñ ba tas na <laughs> damal jëlaat ko récupéré ko amul leneen. gisoo loolu yow. waaw yow rubi yi léegi milagro la ñu. fidélité la ñu wax ñun. léegi ah. Al Pacino Milko. xam <laughs> nga fils dafa maa mere ba léegi. dafa ah. si dafa ma mere mais sa problème la mais. sa problème la. eh baby. eh sa gaañ la nag. you are leaving tomorrow. Eh, you, you, tell your goodbye in my family. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much for having me. We really had, a wonderful time. Yeah. Senegal is a beautiful country. Mm, mm, mm. thank you. Nice, nice to you, happy. Salimata. Yes. <laughs> merci, merci. Déggoo li mu wax nee na Sénégal neex na bëgg na ma kontaan na ci teraanga bi. Baby, baby, I love you. I love you too. eh ciao. eh boy. baal ma yem fii nag. sinon damay a. boy ciao. eh boy n'oublie ma de booy ge. non non non sans problème sans problème. bul wax dama lay woo sap. aay dina yaa ngi bëgg a bett de gis nga Njaay Falaam nii dëgg la suñu cousin la waaye gis nga jëf yi muy def nii du sax yëfu góor yëfu góor jigéen kese lay def. Malick lan la Njaay Falaam mii bu baaxoon barki Dembo Njaay moom lañu indil jabaram ba muy jóge voyage de moom mooy jabaram tey jii lan lañu ñu indil. benn tubaab lañu indi bu xonq kenn xamul sax lan lay làkk kon xam nga ni kii baaxul te nag yow Malick delloo si sa xel sama yaay ak sam pap dañoo yar ci dëggu ak fulla ak jom Malick kii li mu lay wax fexe ngeen ba tas sëyu jàmbur yéen sëyu jàmbur bi ngeen tas lan moo ko fi jar su fekkoonte ni ku xamoon kuy sa jëkkër mbaa kuy sa jabar doo farantoo dangay xaar ba mu egsi rek nga sëy ak moom sëy bii am neexul a yow neexul jeew yàlla mii moo ko dogal te moom mooy dogal sëy ma ngi koy takkee ca aras kon damaa bëgg nga delloo sa xol bii lii man mii maa ko waroon a def mais pas yow Malick bu fekkonte ni ku ñu ku sa far takk jabar walla sa sa sa gel am jëkkër mu defe nii nga defe yéen ñii kon benn sëy dootul neex Sénégal mais nit ki dangay ànd ak yàlla te xam ne yàlla mii mooy dogal. Cissé baalu la ma àq tooñ naa la mais dafa fekk man bëgguma kenn kudul jeewoo te xaw ma kenn kudul jeewoo te jafe na ma ma jël keneen dugal ko sama xol te lii daf ma metti Al Pacino maa ngi moom lu ñu def nii rek mer rek la rien que pour venger wu sama gars yëpp wax nañ ay jano Chico Naar Moussa Lam Bernadette Vieux ñoom ñëpp expliqué nañ ma que ne lu ma def forom ko woon def mu gumba taxlu excuse moi lan nga bëgg suba ñu dem kër paa bi ma jégalu mami promettre naa de demain ñu dem kër jëkkëru jeew ma explique ko li ñu def nii amul lenn la nga xam ne dugg na si dëkk à partir damay dellu doon Malick ba ma doonoon te sama diggante ak yow sukkur si su mu sa nekk day continuer faw ba law maa ngi jégalu bu baax te je sais que bi ñu def nii doon na lu la metti di la wax nag bés ni ki tey man lii dootoo ko gisati sama baat mooy doxaloo ak moom. yaay sama yaay yaay sama lépp bugguma nga may mere reer bi pare na.

sa tamaate loxo ci xonk na. ça va. sant seet man. non paa oh, oh, bi la ñuy seet. wala bii. waaye yow topp leen nag ngeen di politique. neex nga ñëw leen. patron moom ñu ko fi seet bari na trop. bii du pour moom. <laughs> yeewaay ndaw Samba. bii. <laughs> ah taxawal Blaise, suivez-moi. Diable <laughs> Blaise, voilà le patron. Ah, euh, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. salaam. na ngeen def. waaye Kaal. alhamdulilah. sant wa. Guèye Guèye Guèye Nioro. Guèye Nioro ba si bàcc. da ngeen def ak coono bismillah bismillah toog ana waa kër ga. ñu ngi foofu ah ah jaru ko. jaru jaru ko baal bismi rek papa. da eh. ngeen def ak coono. taarikàlla ah, alhamdulilah. ndax ah, kenn yi fan. Ah, ñu ah <laughs> man de xàmmeewu ma leen ci paraas bi foo ngeen fi dëkkee. wax nga dëkk ñoo ngi dëkk nii rek si ginnaaw. Ah. <laughs> yow de da nga dul génn lu bëri. waaw loolu de rëgg la. <laughs> Ah, waaw waaw kii sama sœur la. ah uh-huh. ndeysaan ndeysaan. kañ nga ko marié. ah déedéet ñoo bokk ndey ak baay man ak moom. ah sa rakk mooy sœur. wax nga dëgg kay wax nga dëgg wax nga dëgg. Euh, arikalla. Euh. ndelaay arikalla. papa. Mm-hmm. tey dama ñëwoon fii daal ngir ñu waxtaan. Mm-hmm. Euh, mag dina juum mhm. gone dina juum mhm. te nga juum nangu aussi ne juum nga loolu aussi yaakaar naa yàqul dara daal loolu moom la nit loolu moom dëgg la dara àndu fi woon rek tey mhm. dul sa mbiru soxna sa mbiru soxna moo ñu fenn sama soxna gis nga goos bu ma fontoo duma sa morom dégg nga li ma la wax duma waaye yow mayu ma ko nga naan ma may ko mu wax lu tax ma koy may bu ngeen bëggee moroom ngeen génn si biti wuti ko yéen daal ba ngeen màkkaroonoo sama jabar ba noppi ngeen ñëw fii di di di di àllawle yow na la leer ni lakk nañ leen bu yàgg am ngeen appartement fële ca joxat na ma maa ko wax yàlla dafa wax ni laa taqraboo sinna waxul nga laal de dafa ne bul jege bul jege loolu la yàlla wax yéen nag jegewu leen da ngeen a laal papa. jotul la laal bu laalee ma toj lu borom nga naan ma jotul laal. papa. Hmm? dama lay ñaan ngir yàlla li war a suul dañoo ñëw fii ngir waxtaan ak yow nga dégg li li lay waaj wax nii. man ak sa soxna dara musul xew sama diggante man ak moom depuis nga takk ko dugal ko ci biir kër gi ba léegi man ak moom mosuñu gisee sa soxna ku baax la. te it ay kilifam tamit ñu baax lañ yor nañ ko nuñ ko war a yoree euh, ñun nag dara daluñu lu dul xelu gone ndax booy xool man ak sa soxna ba ñu amee fukki at ak juróom ñu ngi génn ba nu ñuy amee ñaar fukki at ak juróom si lay li am nii di am sama diggante man ak moom séparation bi si nga ko doog ñëw takk si ginnaaw loolu sama cousin ñëw na fi jóge États-Unis ñëwoon fii xam sama diggante man ak sa soxna ni ñu nekkee woon ba mu ko expliquer lu nekk ci biir yëpp loolu aussi tamit doon lu ko metti mbirum xale jàpp ñu ñu teg suñu xalaat gu bon message yu ñu ko doon envoyé lépp lu ñu doon munti def loolu du woon leen lel jubluñ si woon lenn lu dul yàq moom moo waraloon muy envoyé message yooyu ñuy def suñuy affaire ba sa sëy ak sa soxna daal di tas. leen ànd wuñ kon kay buuda su deful dara. deful dara lépp ñun la. kii man ak moom ñoo bokk ndey baay te dëggu rek laa xam si moom lii mu la wax nii moo nekk ci moom dëgg la xëy na nag njuumte am na moo tax ñu jóge ba suñu kër ñëw fii pour di la baalu si àq. Ah, baax na. baax na baal naa leen baax na gay baal naa leen baal naa leen àq. baal ngeen jëf. yore ngeen jëf am ngeen paas ah. waaw yor nañ paas yor ngeen kon mën ngeen a dem. baax na jërëjëf baax na. baax na baax na baax na jërëjëf Guèye Guèye ah, Guèye baax na baal naa leen baax na. baal naa leen. waa ji moom rakkam ji moom baax na loolu waaye. ay wallaay nga kalaate na nag. raasaxis koo gis am na tàcc lii nag lañ naan ba comme poos bu la xar sa dënn doom poos gaañu gaañu ngay am. góor bu ngay wax nag. ah tool moo fi nekk. ba Makari tooga. yéen fi xew. yaa ngi juum ba may woowee Makari. galaata ga nag Amath Dieye laa tudd. Makari yóbbu saa fi Amath. waaw wuy ma da dégg waxtaan wi. li ñu wax lépp mi ngi sama nopp bi yaa ko def. waaw ngi noonu nag lijjanti ko nag lu ne wax naa la nu ma koy lijjantee. doo ko lijjanti ah. ah. neewoon naa la nag football ah ak coup franc ci football la bokk. loolu moom dëgg la. corner yi ci football la bokk ak penalty. mu penalty googu nag euh, euh, euh, rouge mën na caa am. yow nag amoo avertissement rouge direct lañ la jox te moo nekk nii. xanaa nga def ODCAV rek ñu mën laa dimbali baal la ko. nga xanaa ma dem jéem a lijjanti PV ba ndax mu gaaw a génn. moo ci gande da nga dem jëli sa sa sa moom paj baax na ci kër gi de. baax ca man. Hmm. yooyu la wax. waaye nag wax nga ci de. mooy lan daa am kàddu wu ma fa ba woon. mooy ban. bala ma koo mën a jëli xam nga ni danaa saxub génn kat. eh patron nga baal ma nag doo mala bay saxub génn bu dee bëgg nga sa jabar ah waaw wax nga dëgg sax yaa ko def ndax sa mag ju wax jooju keroog bu mu dem bu mu dem bu mu dem munoon na dem topp nga ko ba mu dem dama jëli ma xari dëkk ba. tey ñoo ànd. kan mënumaa dem bàyyil ma res kër gi rek. mënoo caa dem waaye mën nga dem randu leen sidd. ah patron nag teel foofu. ah man ngay wax ma ah, téye ah waaw déedéet da ngaa dugg tamay 18 nag. du ma ca dugg xam ne jaay naa sama sant. Amad Dieye laa tudd. yee ndaw sa barki rasul. Amad doo ma ko. nag. waaw. xaaral ma takk saawu fit moo gën ma demee waxtaan maslaa ko jox di moo dañ la ko jox sax ndax madame yow la bëgg. xoolal ku ma woo nga wuyul ma foofu dégg ma la nga jot a ñëw. moom kay appel bu dul appelu jënde bu fi ñëwee naa ko wuyu. maa la xamal li. yee ndaw Samba. ngay conférence tey laay politique y a pas de cisaille ni de balai ni de rien du tout amat galayaabe rek raddu ci dëgër balaa fàttali di ñëw rek baa fàttali ko di ñëw rek lii waay daw sàbba allo waaw waaw <laughs> bébé Dieye ñëwal fii tey moom je suis libre pour toi toute la maison est pour moi <laughs> galayaabe rek lal sàbba sang barango <laughs> ay waleen dawal ngay conférence di politique ah conférence gi lay bañ jabla bla jabla bla <laughs> kii kaa la kii kaa la merci beaucoup maa ngi raxolo si dégg balaa maa dugg ba doxaal <laughs> na ñëw ci rembi rembi ji nag ñu defar ba mu baax saaf boo xam rek yeewaay am man damaa waroon naan ay doom sax toog xaar dara wóor waaw papa. dégg naa Michael Jackson day ñëw Sénégal. bàyyi leen dégg naa. ah dama dégg naa li ngeen wax na lay wóor yow Michael Jackson bu dee ñëw senegal ci dégg rek la am wó wóoru la Michael Jackson la ko wax. am da dégg ku gis ku jege Michael Jackson ku la ko wax réew mi dégg naa tas na ko. wax ci nit lu bon tas na ko te réew mi sunu réew a ñun ñoo ko moom waaye dara saa sunu yeewoo ñi ngi xool lu bon lu ñu waxal nit dégg naa diw naa dégg naa groupe bii tas na dégg naa diw def na nii diw dégg naa diw waxal na nii diw dégg naa nàngam dégg naa sàngam ca dara du leen ci leer wax lu bon rek ak bëgg a jaxaseeg yàq nañ tàppe suñu xol yi te bëggante te xam ne réew mi suñu réew a dégg naa ak waxal nit lu bon ba ci rajo yi dangay toog di déglu rajo dégg nga maam nit jël téléphone am dagg aw saaga ca kat lay nekk ca rajo billaay picc yi daawul sab bu ko defee nga defe ni ka nekk ca rajo ba rek nga saaga te xolu askan wi yépp nga tooyal ñaata xolu nit nga nga nga mettital ñaata nit nga gaañ ba ci sa njiitum réew bawoo nga nekk ci sa njiitum réew bu teyee nga ni diw nangam njiitum réew mi sàngam ministre bi nangam diw sàngam te ci loo xam ne dara la ci li ñu nekk ci réew mi ñaaw na rafetut rafetut moo tax réew mi ci kattanu yàlla incha allah dinaa ñaan président de la république audience en tant que ancien combatant ndax ñun réew mi ñun la ko war a jox ci discipline ñu yor ko ci discipline ci fulla waaw ñun ñoo xeexoon France ñun la de Gaulle taggoon ndeysaan président de Gaulle téel ma nii ay yee nga seet ak yaa ma yee de ñu fàttali ku démb micro ma nii ca micro keroog ba président de Gaulle kontaanee ci ñun adduna di déglu monde entier di déglu mu si ce n'était pas waaw noonu la ko doon def ndax nag moom la woon daa dëgg woon micro ba le vous eh, vous tirailleur eh, si ce n'était pas vous votre courage comme des lions votre agressivité comme des tigres, wow. votre bravoure, nombreux comme des fourmis. nee na dañoo bëri ni melentaan noonu la ñu doon tuddee di la France sera nulle. ma ne ko dellu fa ni nga ko waxee sa xame woo ko Senghor daal di koy feelu ca wet ga Léopold Sédar Senghor président bu ba ñaaw ba niveau tirailleur sénégalais ñun la doon kañkat à la main chaude couché sur la glace et la mort ndeysaan gars yi di déglu pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes votre frère de sang laay moo doon gor mu ne je ne pas la parole au ministre non pas aux généraux je ne laisserai pas les nuances de mépris vous enterrer furtivement dégg nga eh, pas des pauvres aux poches vides sans honneur. Mais je déchirerai les huit bananes sur tous les murs de la France. eh na Samba papa fàtte woo. Senghor a ko wax Senghor a ko wax. neexuma loolu ma aleykum. maaleykum salaam. maaleykum. Olivier. mets en l'air. avancez. avance. feneen. avance. waaw bu ma rëy waay. pas à pas teek ah. teek mbaa bal baa ngi ci sa dégg. dama fee dikk ngir ñu waxtaan rek ba ba ni. avance comme ça. bolop. waay bu ma rëy waay. bàyyi. bàyyi naa. kii. Ah. mars 36 la moom lañ daan géré. xam naa ko te temps wu gerte. xam naa ko balam day bëtt sa boutique yi. ëpp naa def. genou. genou. sur terre. ah. ma ci kaw. zone sur terre les blancs a woolu fan mooy zone. ma sa oom yi ci suuf laa wax. sukk naa. yow am nga jom. Moodu su doo ci eh, wax. Eh, ba nga wax ci am nga jom. am naa ci tuuti. dama rey. ëpp naa def. lever doucement. lever douce di may ma ñu waxtaan nii. bul tiire ñëwal ma laa rey tàllalal loxo yi waaw waaw te eh, jógal yow jox ma kepp koy kepp jox ma keppu jox ma kepp keppal fi keppal eh bu ma dee keppal fii waay yow keppal keppal bu ma kepp bu du sudoo ci waxal indi kepp indi kepp ree ko ree ndax da laa doon ree ree ko ree ko ree ko rek da la doon li nga waxoon léegi ko noppil <laughs> vous avez le droit de garder le silence. tout ce que je dois dire doit être retenu et peut être retenu dans mon procès verbal. tu dois avoir consulté automatiquement ton avocat. bu fekkee am nga am naa ko kay mi ngi pénal de Suisse.

nii laa koy waxee. waxal yow xam nga ne dafa tax sama pied bii nga xam ni tubaab baa ma ko mayoon ma ci photo muy jël sama photo yi pied bii lii moo lay tiital lii yow nit nga sama pied bii li nga xam ni mooy jël sama photo bi. moom laay sama jabar rek loo ma def loo ma def. waaye xamoo woon ni lii pied la. waaw loolu moom wax dëgg la. xam nga am nga jox. Ah, tuuti rek xam nga lu ma fi indi. wàccal. wàccal wàccal rek tooga amoo jom ñàkk fulla ñàkk fayda fii nan fii fi waa ñëw di jéggulu rek di baalu àq ya ndax dama ndeke mbir yëpp ay manégation la yi ñu def rek te yëguma ci lenn wuy ma yow dofoo dina jàpp la dëgg la delloo siir sa xel keroog ba nga ma koy indil ak waxtu ma ko indil ak lan ma waxoon delloo siir sa xel juum rek juum rek nit xalaatal la ma waxoon xalaat naa ko kay laataa ma yegsi juum rek waaye yow ban jom ak ban ñàkk fayda nga am bay dugg sama kër génn xanaa bëgg ko moom mii rek. bëggoo ko. boo ko bëggoon doo ko ji njaaloo. mu waroon na koo mën a def sax nga suturaal ko ndax jigéen jigéen dañ koy suturaal jigéen du mos sa febeere jigéen du sotti ba waa boo ba mu weex say bañ rek nga sànn gis nga ñi nga xam ni ñoo defoon yooyu yëpp ñëw nañ ba kër ga wax ak man. dimbali ma laa la ku baax la. Ah? déglu damay man du ma jigéen ju joo xam ne day am jëkkër di am far dégg li ma la wax man bonewu ma noonu. juru ma loolu sax wuy ma wuy ma ma ni waxtaan wi dañ koy dakkal ndax gàcce gu gàtt moo gën gu gudd loolu moom dëgg la kooku wolof a ko wax mhm. fi ñu nii bu ma la raayoon mhm. violation de domicile lañ koy wax kooku ñun dagaloon loon noonu ko te temps wu guerre ba violation de domicile bu leen ko dagalal waaye duma ko def bu ko def day ñaaw waaw léegi nag da nga bëgg dama bëgg nga suturaal sa bopp ba git geen baal ma àq ndax damaa juumoon rek buuda suuf damaa juum ndax lekk mbir mi ay cambriolage la woon ñu tànte ma ay pièces ña def nag ay xale yu góor lañ ñëw nañ ba ca kër ga wax ak man ni ma ñoo defoon pièces yépp waaye kii musul def dara kii set na wécc waaye yow nee xooma waxal waaw waxal waaw waaw nee xooma waaw sa kanam neexuma waaw sa jikko neexuma sa doxalin neexuma ndax ñàkk maa respecté moo tax nga fekk sama doom ma may la ko yow kii waroon naa mën a def loolu sax nga suturaal ko waaye nga ni ko coow ak heure ba nga ko indi li ma ko xolo fiesoon rek nee naa pat nee naa pat wax bu la neexee tey ngay yàppari yàppari am ñàkk jom bu toll ni naan da nga koy jël ci ñàkk nga ko ndax yéen da ngeen ne bàyyi ba jaan romb nga jël ngeen di dóor ca warta tit jaan ban chance la am médecin après la mort. maa ngi souffrir de. deewal. ëpp naa def buuda suuf. sa souffrir neexuma. buuda su laa la wax dimbali ma. soo gisee jigéen buy am jëkkër di am far da nga koy xàmme. man du ma bordel. dégg li ma la wax. du yow de. juruma loolu sax. du yow de. léegi. bordel ya kay mooy nga def loolu. eh déglu na ah. déglu na. déglu naa. léegi gàcce gu gàtt gën gàcce gu gudd. loolu moom dëgg te sama nawle nga. Mhm. jógal sol sa grand bu bii. ñu ànd dem kër ga. li koy àndal. sama buuda suuf. waxoo eh. sa soxla. jógal ko génn ci biti. doo ma joxaat sama. jógal amatoo fi jabar sama doom la maa la dàq yor fop man ma ko yoroon ba nga gis ba nga gis ko. Hmm. man kay xam naa loolu. jógal. buuda suuf ah, kooku piyee la. <laughs> dóoram a gën a bon dóoram moom kay benn rek la te duñ ndëkk séemi neex benn naqari benn. jógal dugal dugal dugal jógal acca acca acca waay acca ah. kii ab kii la rek waaw waaye nag gis nga moom fu mu xas a aw papa li nga wax yëpp dëgg la taaru jigéen mooy sëy waaw ci jëkkër ju baax ci jëkkër ju baax te nga maa bàyyi ma ànd ak sama jëkkër rek te dellu sama néegu sëy lan ngay toog kii gisoo ni mu la fi def yow xanaa dangaa do kii njaaloo la la jiiñ dëgg la dangay dem dangay dem wuy ma yow moom sax gaa indi fi woon dara nii nga fi duggee woon ñoo toroxal la ñàkk kattu jom ànd leen te dem neexu leen ma danaa fi dellu si xam fu jublu yàlla bu fa yow yàlla jublu neexu leen ma dara neexu ma seen kanam neexu ma seen sëy neexu ma seen dara neexu ma neexu leen ma gis bi nga <laughs> oui waaw yow lan la li ma la yónnee woon jot nga ca li ma la yónnee woon danga caa jotu fukki junni yónnee naa la ko démb jotoo ci waa kii def nii ah. eh damaa biir. lan man man nii. man dese naa kàttan gu may ëmbaleeti kenn ah. yaa ma ëmbal tey yaa ma ëmbal suba. Oh, ñun dañoo yor yu ñaan ci man. wax jooju bu mu jëm kaw ndax rafetul wax day rafet ci déggin déglul ma wax la kilifa doo jàkkaarloog moom naan ko yaa ma ëmbal rafetul bu ko waa jàkk ji déggee nu may def sama doom yi nag sama noon yi man bi nga xam ne maay pas allemand. calculé woo ko ma li ma lay wax. reste à voir la parce que dama caa woon sama doom ne ca doo indi indi bu bul ma bul mu ñuy wax muy politique ak eh. conférence. waaye benn conférence. dama ni la waaye man yow laa bëgg nga jur sama doom. yaa ma ëmbal tey yaa man du waxaat man mi nga xam ne suuli ma rek. tey ba suba bul ko diin. ma ni la sama doom yaay baayam. neexuma bul ma diin loolu neexuma. yaay baayam foofu laa yam. ma xam nga léegi lu ñu def wooli sama doom jee. nga taxaw mu taxaw ñu ñu piiloo ko nang koy kelemati kelemati leng nu ma nangoo biir bi noonu ah yow sax dangaa war a déglu ma wax la ndax yow say bët neexu ma ŋaam neexuma sa gémmiñ neexuma say façon neexuma sa ëmb neexuma li ma naqari ci yow dafa bari man kenn ma bàyyi ma man safut suukar safut xorom saful kaani saful dara neexoo ma neexoo ma kenn neexoo ma jógul jógul jógul jógul jógul jógul demal sa yoon mu dul ku la gàddul sa nga xam ne sama ëmb bi daal yow yaay borom dégg nga ak jom neexoo ma kenn neexu ma kenn bàyyi daa ñëpp kenn neexu ma neexu leen ko wax da ngeen di bañ ko ko wax neexoo leen ma waaye léegi tal damay rey tal ba neexoo leen ma Laden. الله فوق ما في من ذا الذي الا باذني اذني يحضر gisul ma ko damaa tiit rek dama dama dama dama dama amoon ay somnifères yu ma naan <laughs> Wally Wally Ba dana dellu si ñi di fàkk julli mu fay fàkk di gannaaw kër